yóbbu nañ leen def yóbbu nañ leen Sénégal. Mhm. man nee naa bu fekkonte ni ñoom ñoom dañoo ne rek dëkk bi dafa bëri ay étranger nañ jël ñëpp ñu yóbbu bu fekkente ni ñoom seen dëkk amuñu dara Sénégal loolu man du ci d'accord ak ñoom mais ñoom Turquie lañu am Sénégal amuñu ko ci benn dëkk. Mhm. amul. léegi yéen léegi boobu nag ci loolu nag waroon nañoo mën a gore bàyyi ñu ñun fii ñu toog fii. léegi léegi léegi Khadija. Mhm. da ñuy évoquer problème yi nga cité ko euh, benn par benn yan xeetu problème ngeen fa gën a am foofu ci Turquie jamono jile su ko defee autorités yi peut-être mën nañ leen a dégg. waaw déjà problème type de séjour yi am nañ ko torop torop torop torop torop torop. li ñu gën a sonal lool. Mhm. li ñu gën a sonal lool la. yow yaay gis ku ko am trois fois nga dem di déposer waat ñu jël sa xaalis non seulement dañuy jël sa xaalis. ba mhm. pare duñ la may mais amul motif nag. Mhm. mu dul ay boo dëkkee fii waroo dëkk fii non adresse bi baaxul waroo dëkk fii te loolu du yoon nit ki soo ko bëggul may nee ko bëggoo koo may donc pour jël xaalisam mhm. léegi yow ci kooku nga jël xaalisam ba pare jël dossier mi yëpp ne ko di nga ko may muy toog di xaar mayoo ko muy nga jox ko récépissé mu téye ko mu dajeeg policier policier bi ne ko non reconnaître bu ma lii mu jàpp bi yóbbu la kaso d'accord te kaso bi mën ko tëj trois mois ou bien sept mhm. bu ci yemoon loolu sax neex na mais noonu lañ la yóbbee directement aéroport doo yóbbu bagage doo yóbbu dara nga mel ni ku rey nit te rayoo ni defoo dara da ngaa ñëw rek pour daat sa doole. d'accord ñun déjà ñun Istanbul amuñu consul dañu dañoo war a am consul parce que ñu sénégalais ëpp ñu ci ñu ñu ngi ñu ngi kii rek la ñu am ambassadeur te ambassadeur ma ba Ankara pour nga jël bor rek dem ko trois heures de temps bu fekkee bis bi deux deux jours nga nga koy daw ba Ankara kon loolu fajal lu fajal kiiwuñu fajal fajal suñu soxla en fait. d'accord fajal suñu soxla. man na xam naa ne wax dëgg neex yàlla président Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko xam naa ñoo ngi ci bu baax a baax a baax mais dañoo yaakamti ba pare bi ci des Aline ñu war a déposer seen i séjour instant bii nii man nee naa kuy dem Màkka sax a am yaakaar rek pour def mais boo toggee yow amoo sax passeport dem wala maanaam ñun am na ñoo xam ñoo ngi war a déposer seen titre de séjour amuñu sax passeport seen passeport jeex na hmm. seen passeport jeex na te ñu ci bëri tey sénégalais ñu ci bëri ñu ngi ci biir kër yi ñemewuñoo sax liggéey lii li may wax ni man maa ko dund man mii maa taxaw di xaar bis man mii jigéen man kese maa fa nekkoon nit ku ñuul man la man rek la ñëw contrôlé ci jigéen man kese ñëpp taxaw parce que lan laa parce que der bu ñuul laa te boobu ñoom ña nga Sénégal toog ñu nekk ci seen jàmm kenn lu leen donc nit leen bàyyee Sénégal ñu nekk seen jàmm nañ ñu bàyyi fii ñun ñu nekk suñu jàmm. mais mais allo Khadija. ñëw noonu Sénégal. mais dama déggoon dama déggoon ci information ñu ni président Macky Sall. Euh, dafa am benn këyit bu mu signé woon ak Erdogan mi nga xam ne mooy président Turquie. Hmm. pour permettre. waaw loolu ba mu ko signé. loolu ba mu ko signé. Hmm. loolu ba mu ko signé ba pare. Hmm. moom la mu signé ma ñoom ña ngi koy doxal seen diggante ñoom ña ngi doxal mais képp ku ñu mënoon ci këyit yooyu yàq nañ sa këyit. Ah. amatul fii amatul sénégalais Aliou fii ñëpp ku fi ci woon sa cargo tëj nga ku fi ubbi woon sa magasin tëj nga. parce que gisatoo koo jaay gisatoo benn sénégalais fii mais pour dañoo ñëw pour liggéey kenn ku lay wax dafa ñëw jël yoonu gaal la dara déedéet da ngay dem fournir sa dossier yëpp ñu may la sa visa. Mhm. nga ñëw. Mhm. Khadija fan nga nekk si Turquie. Istanbul. Istanbul maa ngi bii Istanbul. Ah, Istanbul laa nekk. d'accord d'accord li may wax. Mhm. du dégg naa dara dama koy dund. ak ñoom li may wax nag waxuma en tant que Khadija pour Sonko wala en tant que patriote dama koy wax en tant que sénégalais buy dund lu di ko dund ak sénégalais. mais waxewuma ay politique ak déedéet waxuma lool mais ñun dañuy souffrir tarap tarap tarap te nit booy gis boo nekk ci dëkk di souffrir te yow doomu dëkk boobu ñu nga sa dëkk di dund lu leen neex loolu neexul loolu neexul hmm. Hmm. léegi avion buy jóge Sénégal Turquie donc ñoo koy nekk avion buy jóge Turquie donc ñoo koy nekk donc ñoom ñu nga ko seen jàmm ak seen salaam hmm. kon donc ñun nañ ñu may ñu ak ñu ak xel mu dal quoi ñu nekk ci kër yi tey lan la ñuy lekk lan la ñuy dundee lan lay fayee location samedi bi passé am na ñoo xam ne dañoo dem ba seen kër parce que jàpp nañ kenn ku nekk ci buntu kër gi ñu ne ko doon nelaw sax dañ leen a yee yóbbu leen doon nelaw sax dañ leen a yee yóbbu leen te ñun ñëpp amoon nañ séjour ñoom ñoo ko nangu pour lan d'accord sonn nañ trop trop trop d'accord Aliou Aliou Khadija mhm. li mu li mu wax nii mhm. euh, Khadija waaw man li nga wax nii dama si am ay victimes en fait dama si am ay euh, dama si am xarit. am si frère ma bokkal. ndey ak baay li mu wax nii dafa. coïncider dafa am frère ma bokkal ndey ak baay cependant dina ko xamal du xam Diaz lañ koy wax Diaz ko Istanbul la nekk Diaz ko xam naa ko bu nit ku baax. waaw ñu bokk ndey ak baay. am jafe-jafe bitigam la fi bàyyi noonu. voilà bitigam la fi bàyyi. Béazis la nekkoon non Béazis na fa te bari na ci ay morom. oui oui c'est c'est extraordinaire en fait. parce que am naa si ay xarit yoo xamante ni dañuy ñii rek. xoolal leen rek jàpp leen leen fii. waaw waaw nga nekk ci dëkk nekk fi am fi dix ans ou bien quinze ans munoo yow seen kayit sax doo ko am seen passeport sax doo ko am. Mhm. ba pare yow nga xëy un jour rek ñu xañ la sa titre de séjour la pare ñu yóbbu la kaso. wala nga dajeeg policiers yoo xam ne ñoo reçu bi reconnaître wuñ ko kon yéegal te fekk yow fay nga ba pare. d'accord léegi nga perte sa xaalis ba pare ñu tëj la kaso ba pare yóbbu na sa réew. te Sénégal fu ne xam na nu mu mel boo tukkee dëkk boo xamante ne mën nga fi am 10 ans la nga paasoon doo ko jotaat. léegi bu fekkoon ne ki xamante ne yaayam dafa dajale woon ay ooram jaay nattam léppam jox la ko nga nga dem nag mais kooku doo bëgg a ñibbi genn waat gi ñu ngi ci kaso bi. léegi xale yi xale yi sax genn waat gi ñu ngi ci kër yi je crois que comme ay sénégalais ngeen nekk foofu du ñàkk ngeen am benn kuréel boo xam ne ci ngeen di tënku mm. ñëpp bu ngeen amee lu leen naqare kuréel boobu di ko remonter di ko yégal peut-être bu demee ba të ñu soog a ñëw ci média bi xam naa am ngeen genre association yooyu dafa mel ne wala amu leen ko. am na am na fi kii euh, sans papier am na fi waaw euh, kii sans papier waaw ñooñu ñoo doon kaas fii mais man li may kaas man pour pour pour ñun man xaaruma sans papier kaas wala keneen ak keneen kaas déedéet. man damay wax loolu damay def man sama devoir la man sama devoir man loolu laay def parce que am na ñoo xamante ni peut-être bëgg nañ wax mais mënuñu seen kersa may leen mais man nag defi sa période wax dëgg neex yàlla damay kaas su ma gisee lu ma naqari dama koy wax si ma gisee lu anormal dama koy wax. léegi li ñuy def mooy. Euh, seen kaa comme critique na. te Ousin mii di wax rek euh, am na ci ay victimes yoo xam ne am nañ ci. Mm. man itam am na ñeneen ñoo xam ne xam naa leen ñu ngi dund foofu ci Istanbul ni ni ngay waxee nii xam naa ni ay jafe-jafe bari ngeen ko lool donc dañ leen di invité ci beneen jotaay boo xam ne jotaayu xeltu lay doon boobu moom jotaay la boo xam ne. képp am looy jàmbat soo ko fa dugalee peut-être suñu borom la ci defal euh, sudura hmm. ñu gën faa waxtaan gën a indi ay détails donc. Euh, incha allah Aliou doguma la doguma la mooy mooy bi may tàggatoo bi may tàggatoo nii ñun dañoo jàpp ba jàpp ci le jour élection hmm. présidentielle jàpp nañ ci quinze personnes delloo nañ leen Sénégal pour lan hmm. te jour élection ñu policiers yi ñëw ba ci biir salle bi jàpp leen pour lan nee nañu may jàmm ñun sàcc ñu fenn ñu jaay ñu dorog def ñu dara lu bon nee nañu bàyyi. ñun yàgg-yàgg dañuy ñibbi xam nañ ko mais ñoom mënuñoo li ñu mënta nangu mooy ñoom ñu nekk di am fa lu leen neex ñun ñu toog ci di torox mënul nekk ñun ñuy toroxal parce que nit bu ne nit la. d'accord te ñun ay kat lañ nag ñoo ngi interpellé bu baax a baax a baax les autorités ñu ngi leen di interpellé bu baax a baax ñu nu mu gën a gaawee rek xeeb nañ ko. incha allah dox nag ñu ngi koy dox wax dëgg neex yàlla mais dañuy yuuxu rek. in incha allah danañu ah. danañ ci euh, def lu ñu mën ci wàllu reteet ba autorité yi jot ci wàllu diplomatie la xëy na ñoom danañ xam mm. nag lañ ci euh, tax seen saafara mm-hmm. ci jafe-jafe yooyu Xadija ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm nañ la jëlaat ci beneen jotaay incha allah incha allah incha allah merci mm-hmm. wax nii dafa garaaw de man bi ma laal waaw ma dama am ay ñu mu bokkal ndey ak baay kenn ki ba mu fii même ñu mu njiibisee léegi mm. matul matul trois mois bon instant bi mi ngi am na fa presque deux ans séjouram la yoroon séjouram bi dafa dem ba jeex mu demee ba jeex mu dem di ko renouveler ñu téye ko ñu ko téyee li ñu lay proposé mooy dañ lay téye ci kaso bi presque six à deux ans six mois à deux ans xëy la bàyyi la wa ilaa ñu dipot la quoi maanaam ñu ñu indi la Sénégal direct te bu ñu lay indi Sénégal doo jaar sax sa kër pour jël say bagages. waaw comme li mu wax nii quoi voilà parce que sama rax ñu lay wax nii. fan yi lay doog a récupérer ay yéreem ay valise yéreem yoo xamante ni bàyyi woon na ko Turquie parce que dañ ko jële foofu direct def na fa presque bon kaso laa ko mën a tuddee parce que ñoom ko téye foofu presque deux mois comme un mois def na ko fa ñu indi ko donc mu nekk lu doy waar te man ci lu ma ci dégg ci information président Macky Sall dafa doon bëgg a jàppale sénégal yi nekk Turquie mais bu mu demee ba euh, dem ci je pense que élection pré locale yi la xaw ma xaw ma député yi Euh, ñi nga xamante sénégalais yi fa voté maanaam Sonko dafa jël foofu raw gàddu gi jël bu garaaw président Macky Sall ci lu ma dégg si information mu mere euh, moodu moodu yi nekk Turquie. mu sanctionné leen ci waaw mu sacrifié leen quoi bàyyi leen bu ñu def lu leen neex mais loolu rafetul en fait pour man Bassirou Diomaye Faye bokk na ci chantier yu gën a jàmp yu mu war a def mu ak euh, Yassine Fall bi nga xamante ne mooy ministre des affaires étrangères mu dem au moins Turquie war naa am consulat parce que Turquie si Turquie état bu toll ni Turquie. yow amul consulat amul sénégalais boo xamante ni am na bu ñu amee lu leen metti dañ fay dem lan moo fa am mooy ay association ñoo fa yooyu noonu lañ na ñoo koy reconnaître ñoom ñoo koy reconnaître euh, moom mooy Turquie ñoo am fa consulat mu leen di jàppale seen i problème mais mënuñu jàpp doomu Turquie yi ñaata doomu Turquie si banlieue bi sax laa mën a wax parce que ñoom ñu bëri ñu Turquie doon nekk fa di ambulant mais ñaata nit lañ fi lañ fi dipot bëri na boo yaayee ñëwaat fii toog du xoole donc Bassirou Diomaye Faye bu bu déggee message bi du ñàkk dégg na ko bu ñàkk dina doxantu xëy na Turquie mais Turquie yi fii ñaata entreprise lañu fi am ñaata la leen président Macky Sall fii nii boo ñemee pompier si tey nekk foofu Turquie lañ ko jox lañ lañ jox résidence bu nekk foofu ñu tabax ko di ko jaay par appartement appartement jam ñaar yooyu boo fa demee ay turki kese ñoom ñoo fa am entreprise donc mm, ma d'accord si état wu Sénégal non Macky Sall dama mu fi yàq bëri na de si ñoo ko sañ a wax quoi mm-hmm. non dafa non sérieux dafa bëri lu mu fi loo xamante ni donc dafa fi bàyyi daal dafa sacrifier Sénégalais yu ci bëri bàyyi ko fi dem si si ñii moom seen problème yow mën li jënd problème ma ko ñu ma ko njëkkoon a signalé boobu maa ngi woon euh, Euh, feeling Dakar donc euh, automatiquement bi ñu duggee wax seen jafe-jafe dañ ci teg une semaine deuxième semaine bi ci la ma ki ma woowoon même personne bi woowaat ma ne ma suñu jafe-jafe président mu ngi ñuy gestu maanaam jox nañu information que ni président jot na ci ñu ci taxaw ñu doxalaat tuuti mu woowaat ma ne ma affaire daal ba tey dafa gën a sax kii mooy li nga wax nii esprit politique moo ko la ma wax nee na ma fii fii daf fi perte ci élection yi donc euh, pratiquement perte bi ñu fi perte nag dana impacté ci suñu ci suñu dundin ñun sénégalais te euh, effectivement li ndaw si wax léegi euh, dem na sax ba seen dëkkin foofu xaw day waar maanaam dañ naan la soo bëggee dëkk comme par exemple nga bëgg dëkk Pikine ñeen la non non yow amoo sañ-sañu dëkk Pikine demal Médina foofu nga war dëkk nga dem Médina ñeen la enregistré wuñ la fii mënoo fee dëkk paratiquement dañ lay ping pong loo di la jaabante loo dugal fii génnal fii defal nii jaaral na la donc c' est quelque chose boo xam ne c' est un difficile à gérer mais quand même ñu ngi interpeller le président de la république du Sénégal ak son premier ministre Ousmane Sonko ci ñu taxawu gaañ yi au 78 535 92 92 mën ngeen a jàmbat lu leen euh, neex ci fi nga xam moo di suñu antenne euh, ci euh, texaa nga Actu seen bu amee ku nekk ci li ñu ma jël ko salaamaaleykum kooku euh, daw na ah ni ko seen di defee daw na ñu <laughs> wéyal ba tey 78 535 92 92 ci kanam tuuti ay